La parole est à notre collègue Sokhna Mbodj. Euh, Pape Seydou Dianko, le suivant. Assalaamu aleykum. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale Monsieur le ministre Amadou Mansour Faye ñooy leen nuyu ak say collaborateur Monsieur le ministre ñu ngi rafetlu te fas yéene incha allah te am nañ yaakaar ni ñëpp dinañ ko voté loi boo xam ni day bokk na ci liy améliorer qualité infrastructure yi ci Sénégal ñu la ciy gërëm bu baax a baax euh, léegi am na ko doon wax ci qualité goudron yi am ci Sénégal en tout cas ñun ñu nekk dans le département de Dagana en 2015 président Macky Sall ñëw na inauguré tronçon Saint-Louis Richard Toll Richard Toll Ndioum et jusqu'à présent mi ngi ci huit ans yoo xam ni amul fenn foo xam ne jaaraat nañ fa di def di taf wala di defar ndax qualité liggéey bi am foofu kon ñun dañu bokk ci ñi koy seede te ku nekk xam na le département de Dagana zone la boo xam ni zone bu argileuse la am napp napp bi di jox mais defar nañ ko qualité boo xamante ne ni kenn jaaraatu ci ba tey te di rafetluwaat pont Bastoul yi nga xam ni nekk na fa ñuy contrôler chargement wu euh, poids lourds yi lu ci am solo la luy baaxal liggéey bi la monsieur le ministre tey nag sama wax du bëri lu euh, honorable Abdou Mbow mi may tooñ léegi li tax ma gën di wax tey damay wax ci le président de l'Assemblée nationale muy Amadou Mame Diop te yaakaar naa ne fii man maa gën a placé pour wax ci moom Sénégal nag politique tax na muus di xiiru gaynde politique dong moo leen ko may Amadou Mame Diop fi mu toog tey confiance su président Macky Sall la am fi mu toog tey compétence am la am moo tax président Macky Sall teg ko fa te di nit boo xamante ne ni nit bu yaru bu teey un homme qui passe inaperçu fësalul lennam dama leen di wax loo xam ne man bi ma ko déggee daf ma naqadi duma ci nëbb tout récemment conseiller ay billet màkk yi mu doon joxe lan la wax nekku fa dafa joxe ndigal mu ni na conseiller yëpp toog amul kii wala kee nañ ko loterie ku mu dal mu xam ne moom sa sa chance la xam nga ñan ñoo ci dal ñaari député ñaari conseiller Pastef ñoo ci dal ndax lan mooy transparence ci si liggéeyam moo ko yamale ñëpp fi mu toog war nañ ko fee mën a jox cër bu mat sëkk de nit boo xam ne ku ko yab politique moo tax mu yab ko du ñàkk fullaam du ñàkk faydaam du mën a teg baaraam ci liggéeyam te ni muy doxale ku ko gis ak comportement am xam ni Sénégal nu mu comporté woo ak ni ñu mel tey genre yu mel nii ñoo ko mën a yore comme ni ko président Macky Sall di defee tey di wax ndànk te di def li nga war a def président Macky Sall ak kii dañu nuroo jukku du nit yu ñuy xoqatal du nit yu ñuy tiital du nit ñoo xam ne dañuy cédé chantage seen troisième mandat boobu bu yeboo ngeen teg ko fële du loolu mooy randal président Macky Sall ci kaw mu bëgg ka ci kaw mu bëgg ka su ko bëggee constitution bi jox ko kenn mënu ko koo teree ndax xam naa ne genre nit boobu la kon xoqatal yi ak tiital yi ci Amadou maam Diop wala président Macky Sall na tegu foofu du genre yoo xam ne dañuy cédé chantage kon ma di leen wax ne nañ ko jox cëram bu mat sëkk nit bu jullite la jullit la Sénégal ay jullikat ñoo fi nekk moom jullit la qualité dañ koy yeex ci Sénégal fi ñu toll nii et président Macky Sall ñu mel nii la soxla ñoo xam ni dañuy am confiance duñu ko wor ànd ak moom di liggéey te di ko jox xolam bu mu jeex takk Amadou maam Diop bii président Macky Sall bu nekkoon benn nit mooy des ci wetam ëllëg gin naa ne buñ ma tegalee kaamil ma teg ni moom lay doon place bii dañ place bii mu nekk tey ji du lu muy laaj mairie bu gën a mag ci département Dagana moom la gérer moom la gérer ak transparence bu mat sëkk kon kii du moom mooy mooy ñàkk fidèle ci président Macky Sall lii mu toog nii daf ko mérité te ku ko yeb nag fii moo tax nga yeb ko kon règlement intérieur fii dañ ko war a xoolaat bu baax a baax bu baax a baax delloo nit ñi seen cër institution Sénégal yi ñu di leen teg fi ñu leen war a teg ndax bu du du Mame Diop la ñu mais keneen ku fi toog tey jii ëllëg di nga am li mu am kon ñu jëm ko régler dès maintenant loolu moom moo gën président maam Diop ku la yeb fii moo tax mu yeb la mais man mi la xam xam la bu baax a baax kenn du la yeb ci sa juddu kenn du la yeb ci sa jukko kenn du la yeb ci sa doxalin te duma la jeter fleur ndax xam nga ni man duma ko jeter Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Pape Seydou Dianko. la suivante. Monsieur le Président ñu ngi lay ziar monsieur le ministre des Affaires ñu ngi monsieur le ministre dama lay ci bi accident yi amee mesure bi état bi jël waaye nag ma lay ñaan fi ñu jëm tey ku ne xam ne tabaski ak gàmm ak màggal mooy traite transporteur yi doo ñu may rek une semaine avant ak une semaine après pour ñu lever mesure bi ndax oto yi mën a daw guddi gi parce que nag fi ñu jëm ak tabaski yi dañuy yëpp ay xar dañuy yëpp ay jur te si si ak transporteur yi nag respecté nañ mesure bu baax parce que arrangé nañu nag ñu ñu nekk ci tali bi à partir de minuit station boo dem wala arrêt boo dem ci dëkk day fees del oto yi dañuy gaara waaye nag boo ñu mayoon une semaine avant ak une semaine après gars yi demoon julli ji Fuuta ak Rosso ak waa Saint-Louis mën a ñib siwaat danañu arrangé loolu loolu nag man maa la koy ñaan ci turu transporteur Sénégal yëpp ak chauffeur yi parce que nag mesure bi nga jël wàññi na accident yi bu baax ci daw guddi bi parce que ñun ñu nekk tali bi xam nañu circulation libre na waaye ñu lay ñaan ku teg xar war a dem Casamance nga guddee fanaan ak xar ma mu mot 24 heures métti na ci ñun ñu lay ñaan rek boo fekkee mën nañ def dérogation ngeen may ñu une semaine avant ak une semaine après pour dimbali askan bi nga xam ne ñu tabaski ji loolu laa doon ñëw si monsieur le damay wax ne assemblée bii tey bëri na ko taxaw ci micro wax na nga waxee sa jukko mel ko lu am solo bëri na ko taxaw fii wax ci micro parce que micro moo la tiim waaye na nga waxee. sa jikko melu ko te ñun xam nañ ci lu bëri monsieur le ministre monsieur le président bul sonn xam nga boo waxee ba pare ak say ndaw nga toog da nga war a assumer nga toog ñu tontu la pour assemblée bii lu fi waay wax am nañ si tontu nous sommes tous des citoyens sénégalais xam nga am na ko fi wax léegi ne maa ngi féliciter son excellence président bi nga xam ne pont saa Sassoum tuddee na ko Balla Moussa Daffé ay ma lay féliciter ci loolu. kon tey président nekk na koo xamante ni xam na ñu doon liggéey Sénégal démb ak tey te sa bokk kon nag na nga wàññi tension bi ak tempérament nga xam ne président mu ngi jox sa papa cër bi mu ko war a jox bu mot sëkk nga rendre nag monnaie bi ci ki toog fii di wax géñ naa ci salaatu fatiha Amadou Mame di la jokka bi di la saaga sa dàll càmmoñ moo gën bàyyam waaw maa ko wax li may wax maa ko assumé dama ne li ma wax maa ko assumé c'est man maa ko wax na toog man yëbbantewu ma kenn wax dama ne man maa taxaw ci wax man maa wax li ma wax maa ko keneen ku wax loolu ma tontu la parce que ma wax maa ko assumé waaw a dàq saaga moo ci lañu tàgga ku saaga ñu saaga la on est là moon tout le monde il faut que ñu ngeen respecté ñu ñu respecté leen ku ngeen bi saaga ñu saaga leen parce que ñu ragaluñ saaga ñun ay produits yi gaaraas lañu nous sommes des garçons de la rue ñun ñun ragaluñ saaga de koo ñuy saaga ñu delloo ko vous êtes là pour qui si on parle de développement on parle de projet de loi nañu wax ci texte yi wax ci ordre du jour yi nga xam ne loolu moo ñu fa andi te loolu mooy jëriñ sénégalais yi mais di attaquer ay institutions di attaquer ay nit di toj ay BRT di lakk ay biis loolu c'est pas un patriote seen tur leen ko war a changé waat ni nga tuddee seen bopp melu leen ko Sénégal ñëpp a ko bokk li fi Senghor defoon la fi Ablaye Wade ko fi te Macky koy bàyyi nañ xam ne li ñu am di ko yàq ñun ñoo ko moom tey jël ay patron université di ko taal pour ban njëriñ yéen ngeen da ngeen di bokk da ngeen xaar ba aji saar